إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون naa kàddu gi du gudd ndax kàddu dalal gat ñi rekk la ko defee ñoo ngi dalal bu baax mboolem ñi fi daje ñépp ci aw góor aku jigéen ñi bokk ci kuréel gi muy jamaayatu maalimil quraan ak ñi nga xam ne ay soppe lañ ci jamaayatu maalimil quraan ay soppe lañ bu ñu ko waxee mooy koo xam ne bokkul ci kuréel gi waaye lépp lu kuréel gi yëngu ànd na ci kon looloo wax dëgg yàlla ñoo ñu amuñu seen fay waaye tamit di dalal bu baax di ko beral am nuyoo bu baax muy Serigne Khadim Diagne mii bàyyikoo ba ndakaaru bokk ci ñi nga xam ne kuréel gi da leen safoo bu baax euh, ci yëngu-yëngu yi muy amal muy ñëw bu baax di ci joxe yitteem mooy mi ngi ciy def xalaatam bu baax di ci def ak jotam bu baax di ñuy yokk tamit ay conseil bu baax ci naka lañu war a mën a def ba kuréel gi gën a nosu ba sax beraloon nañu ab jotaay ñëwoon ci biir groupe whatsapp bi waxtaanoon ak ñun ku ne xam na ne wax dëgg nag amul jot waaye loolu moom defaloon nañu ko kon moom it noo koy beral am nuyoo bu baax moom nag moom sëñ xaadim moo ñu war a defal waxtaan wi ci diggante diir bi ak muallim bi jàngalekat bi ak borom daara ji ci naka lañ war a jëflantee naka lañuy def ba jëflante boobu rafet waaye bu rafetee ba noppi naka la ñuy def ba mu tegu ci aw yoon ndax mbir mën naa rafet waaye du tegu ci aw yoon waaye day boole ñaar yëpp tegu ci aw yoon ba noppi kiy jëf ki nga xam ne moo jël du loru kiñ jëlit du loru ànd ak loolu nag mu tegu ci respe ak rafetal loolu moom moo ñu ci defal waxtaan teyit mate na ko nag mate na lool tomb boobu ñu ko jox ndax jàngalekat la jàngkat la boo nekkee jàngkat dinga xam naka la kilifa di yore ab dongaam ndax dañ la dañ laa jàngal nga ne ci école yi di jàng ne ci daara yi di jàng ne ci école yi di jàng ñu yilif la nga jóge ca dema demaat ba yow ci sa bopp nga yor daara yemoo ci yor daara waaye nga yor école kon dinga xam ñaari matière yépp ki yor daara naka la war a mën a jëflanteeg jàngalekat bi ki yor école dana xam naka nga mën a jëflanteeg jàngalekatu français yi kon moom dana xam ñaari wàll yépp loolu bokk na ci li tax ñu taamu ko bu baax yàlla dogalit mu am ci xikma yu ama am solo yum ciy def am ci ay taxawaay yu mat sëkk sëkk sëkk yum ci liggéey euh, kon loolo moom bokk na ci li tax ñu tànn ko teyit mate na loola lool ndax yor nay daara yori jàngalekat di jëflanteek ñoom jàngalekat yu góor ak yu jigéen kon kooku it dina xam bu baax dëggi-dëggi li tax ñu tànn ko ngir mu mën a waxtaan ci loolu waaye bu ko defee it moom it ñu gën koo présenté bu baax jamaayatu maalimil quraan xëy na ñii fi daje ñooy waa kuréelu jamaaya bi ak ñii ak ñi ñu gisut ñu ci bari ñëwuñu waaye nag membre fondateur maanaam ñi nga xam ne ñoo taxawal jamaaya bi nga xam ne lii mooy seen jubluwaay ñoo ko bindoon ne ñun lii lañu bëgg liñ bëgg lii lañ gis jafe-jafe yii lañ gis ba tax ñu taxawal kuréel gii gis naa ne ñu bari ci ñoom ñi ngi fii ci jotaay bi ñoo xam ne réere wuñ dara ci kuréel gi bis bañ ko sampee ba tey jii lépp booba léegi ñu ngi ci kon ñoom réere kuréel gi ñooñu tamit ñu ngi ci kuréel gi seen jubluwaay nag mooy taxawal kuréel goo xam ne dafay jàppale bu baax a baax a baax borom daara ji mu diir bi naka la koy jàppale mooy di ko wutal ay jàngalekat yu qualifié yu man li ñuy def yu am yu am responsabilité xam li leen war bu baax ànd ak loola it li ñuy séntu ci ñoom ñu man ko muy man alxuraan gi waaye man koo joxe ci joxin wu ànd akuk rafetal ci joxin wu ànd ak yërmaane ci joxin wu ànd akuk dal waaye ci joxin woo xam ne it dana da bu munta gaaw lool it dana xaw a gaaw loolo jamaye bi mu ngi ciy liggéey ngir jàppale ja borom daara ji waaye it muy liggéey bu baax ngir jàppale tamit jàngalekat bi ci naka la koy jàppale mooy fexe ba moom li mu bëgg ndax mi ngi ci moom bu dee mi ngi ci moom mu gën a góorlu bu baax yokk ko parce que ki xas ba tànn jàngale kooku waratul a jóg ci di jàng saa boo tànnee jàngale rek bis bu set da ngaa war di jàng ndax saa boo yemee ki ngay jàngal benn niveau rek mënatoo kaa jàngal kon bis bu set da ngaa war di yokk say effort bokk na ci lii ñuy def ni yokk effortu jàngalekat bi kon misaal la ci ne kon jamaye bi li mu waxoon ne. day gën a jàppale jàngalekat bi gën koo dolli lii ci la bokk tey muy gën koo dolli bu baax ci mu gën a xam moom lan mooy responsabilité am ci daara ji bu fa xasee ñëw bu fa xasee nekk naka la fa war a nekkee su xamee ni mu fa war a nekkee ba noppi nag mu ci biir njàng mi nag mu xam naka la war a jàngalee loolu bokk na ci li nga xam ne jamaye bi da ciy liggéey bu baax ànd ak loola it. di jàppandalal bu baax képp ku di ab jàngalekat moo xam yaa ngi ci kuréel gi moo xam nekkoo ci kuréel gi saa boo bëggee barab boo mën a jàngalee su jàppandee mu mën la caa jàppale bu baax waaye nag bëgg nañ bu ñu jógee fii tey tamit loolu ñu bàyyi ko xel bu baax bëgg nañoo taxawal taxawaloon nañ ko waaye dañu koo bëgg a jëmmal bu baax muy nag képp koo xam da ngaa bëgg a jàngale faaw nga ñëw bokk foofu bokk gi lan lay jariñ mooy ñu xam ba ndax yow li ngay wër man nga ko war a mënoo ko gannaaw boo ko mënee ba noppi nag nit moom moo xam pas-pasam waaye danañ am ay nattuwaay yuñ teg pour mën a xam nit ki ndax dafa am diir bu mu bëgg a nekk ci lii rek wala daf cee bëgg sax loolu euh, jamaye bi dana ci liggéey bu baax waaye daal lii daal mooy nekk moo nekkoon jubluwaayu jamaye bi mooy jàngalekat yi fi nekk ñu gën leen a jàppale bu baax gën leen a tàggat bu baax ci li leen tax a jóg ñu man ko suñ ko mënee ñu gën koo yokk suñ ko mënut ñu fexe ñu man ko sëriñ daara bi tamit coono yi mu daan daj ak ñàkk ñàkk qualité bi mu bi daan daj ci euh, li ma daan faral di wax nga xam ne jàngale moom day mel ni oto bu yooru rek nga xam ne yow saa boo fu la neexee jële fu la neexee bàyyi loolu tamit dañoo bëgg mu dakk bëgg tamit damaa bëgg nga may jàngaleel nga ñëw ñu naan la taril ma mbaa bindal ma loolu tamit dañoo bëgg mu dakk mooy nit ki buy jàngale dafa war a yor kayit bu leer buy màndargaal ne war naa mën a jàngale ki koy jëli jël ko ci kayit boobu ñu signé tamit contrat bu leer naññ diir bii laa fi nekk moo xam ñaari weer la ñetti weer la ñeenti weer la saabu bu diir boobu matee buñ ko bëggee dolli dolli ko buñ ko fa bëggee yemale yemale ko fa loolu tamit bokk na ci li nga xam ne suñuy jubluwaay la loolu nag xëy na yàgg nañ koo tudd waaye nag mbir mu nekk lu muy gën a dox rek di gën a nosu xam-xam bi di gën a yokk xalaat yi di gën a yokk mbooloo mi di gën a yokk ñuy gën a dolli yitte yi waaye lii daal moo nekkoon jubluwaayu jamaye bi ndax dañoo gisoon ne yëf yi tasaaroo na lool tasaaroo na lool fu mu neex jël kum neex jàngale ku neex jël ku neex bàyyi yow it su la neexee dem su la neexee bàyyi yëf yi nësuut tuuma yi tamit bari yenn saa yi ñu naan jàngalekat yi nangam lañu def def nañ barab sàngam nangam jàngalekat yi it boole di jàmbat mudir bi nangam borom daara ji nangam yooyu yëpp nag ñu ne loolu nag faaw mu am kuréel goo xam ne mooy nos loolu te bañ ko taxawalee ak léegi nag gisaguñ genn kuréel gu mel ni suñ kuréel gii te doo dem ci genn kuréel ci kuréel daara yu mag yi tamit fekk ko fa waaw kon nag nañu xam bu baax ñu li li li ñu tax a jóg ñu necce bu baax buñ fi jógee tamit ñu yokk yitte yi bu baax xam ne liggéey yi bari na lool loolu daal moom laa doon euh, tijjee xëy na li ci des moom dañuy bàyyi ba mbooloo mi daje nag bañ dem ca mujjug waxtu wa rek incha allahu rabbi di ñaan yàlla sama borom nag mu defal ñu ci tawféex bu baax ba li ñu yéene ba tax ñu daje lii ak ñi ñu tànn suñu borom may ñu ci ndam bu baax. di nuyu nag mboolem jàngalekatu alxuraan yi fi teew euh, di rafetlu thème bi muy thème boo xam ne dafa am solo te day wane ne mbooloo mi. am nañ ñu bëgg li ñuy def lañ ndax mbir soo ko bëggee bokk na ci sart ngay gëstu luy tax mbir ma nga mën caa am ay résultat kon su ko defee thème bi mooy xusnul muamala baynal muallim wal diir maanaam rafetu jëflante diggante jàngalekat bi ak ki jiite daara ji loolu nag dafa am solo ndax sëñ ablaat day wax ne mbooloo mu ne lañ seq loolaay seen àdduna maanaam mbooloo mu ne lañ seq loolaay seen àdduna ngir ñu mën cee jëriñu ba mën cee jëriñu nee na faaw dañ koy takk niw say xam nga dafa am baat bu am solo bu mu ci wax ngir ñu mën cee jëriñu mën cee jëriñe te doomu aadama da ngay fexe ba doon koo xam ne da ngay jëriñu di jëriñe ci lu doon sëriñ bi sax da lay tere nga ànd ak koo xam ne du la jëriñ àdduna laa mu lay jëriñ alaaxira donc comme ànd faawu jëriñante am ci mu ne ngir ñu mën cee jëriñu mën cee jëriña faaw ñu takk ko niw sayu matt daane matt mi ci àll bi du su dutoon buum gi ko takk lu ñuy mën a jëfandoo lu ñuy mën a jëfandikoo ci kër gi du ci yegg si ndax ganaam matt pour nga dajale ko ba mën koo jëriñoo faaw nga def koo say pour mu nekk say faaw nga takk ko li nga koy takkee ak buum lay doon buum googu nag mooy règle bi mooy xaayida mu ne mu teg mu joxe ci misaal mu am solo ne saxaar ci raay rek lay jaar waaye soo demee ndar wala nga dem njaareem boo fa fekkee ka nekk ca gaar ba dana la wax fa saxaar déparé ak fu saxaar tardé xam nga loolu lu am solo la mu ne mu ne mu ne yeew gi ñu koy yeew ci benn buum moo waral ñu mën cee jëriñu waaye mën cee jëriñe donc daal dina nag ñun nañ ñëw nag ci luñ seq ñun muy diina islaam gi ñu seq donc loolu day wane ne ñun ñi nga xam ne dañoo seq ab liggéey moo xam mu diir la wala mu dañoo war a xam ne communauté la te yamut ci ñoom ñaar ndax jàll na ba ci ndongo bi parent d'élèves bi jàngale tamit ba ci état jàll na tamit ba ci àdduna bi muy muy communauté kon ñooñu aussi liñ ànd buñ koy yeewut ci buum ba mu leer duñ ci mën a jëriñu sax ba ciy jëriñe loolu tamit lu mat a bàyyi xel la mu tegaat ci ne ànd njëlbeen nga dees koy xam léeg-léeg tamit ñun ni ñuy signé contrat par rapport ak ndax contrat du loo xam ne ndax contrat ay façon la am na ñuy bind am na wax rek la mais buñ ci wax rek contrat la bu fekkee ne bu ñuy wax la waaye njëlbeen nga moom na lépp leer ndax Olof Njaay day wax ne lu tas sëy lu ne nuyoo woon na ca ngoro ga waaye dañ koo fayut donc bu ko defee njëlbeen ànd njëlbeen nga des koy xam dafa war a leer kon ñu ne nag dañuy waxtaan nan la def ba diggante mudiir bi ak muallim bi rafet ma jàpp ne comme dañuy njëkk a wax lan mooy mudir ak la mooy muallim waaye nag lan mooy mahamul mudir lan mooy rôlu directeur d'abord parce que il faut nit ki tamit mu xam la mooy ay rôlam euh, liggéeyam fan la tàmbale fan la yem ak nan la koy defee suñu paree tamit rôle yooyu pour mu mën koo euh, jëfee jëfin wu rafet faaw mu am ay compétence loolu ñu tuddee ay maharaat ay compétence professionnelle muy maharaat mihaniya ndax métier mu ne dafa am lu muy laaj jàngalekat bi compétence yi mu soxla mooy mën-mën yi mu soxla bokkut ak maçon bi mën-mën yi mu soxla bokkut ak comptable bi mën-mën yi mu soxla bokkut ak militaire bi mën-mën yi mu soxla bokkut ak tamit euh, président de la république mën-mën yi muy soxla kon moom mi nga xam ne mooy jàngalekat mooy mooy directeur d'école bi wala moom mooy mudir euh, madrasa bi moom maharaat mihaniya yi muy soxla muy compétence professionnelle mooy mën-mën yi nga xam ne métier da koo laaj faw yooyu mu am ko ngir mën a jëfee ay rôle waaye tamit su ko amee ba pare faw mu am lu ñuy tuddee as sifaat as shaxsiya moom mooy ay qualité personnelle mooy ay jikko yoo xam ne su ko jëfee ba pare it dana rafet ba nga xam ne ànd ak xikma ba nga xam ne loolu aussi dana am solo parce que qualité personnelle yooyu moom mooy as sifaat as shaxsiya su ko nit ki amul. mën na am xam-xam bay dagg di wàcc waaye moom lañu ñuy wax fa kasratul ilmi bi xayril adab jaalibatun ila aza wa taab am nga xam-xam yi am nga lépp mais toujours yaa ngi am coono mooy dafa am loola manqué mooy dafa am ay jukko yoo xam ne nit ki moom la war a meloo ba mën a jiite wala mu mën a ànd parce que ànd tamit dañ koy jàng lu jafe la waaw ànd des koy jàng parce que benn doomu aadama mënul dem moom rek dañ lay wax ne ku ñu wax Rousseau Euh, pédagogue la wala boog socio socio sociologue la dafay wax ne nit euh, bàyyi ma la boo xam ne ci société rek lay dund moom la ñoo l'homme est un maanaam nit bàyyi ma la boo xam ne dafay dafa social dafay soxla di dundandoo nit loolu kenn rek moo ci mucc muy suñ borom moom rek moo soxlawul ku koy dimbale waaye ku dul moom ak loo am daraja ak foo mën di toll soxla na ay ay ay ñu lay jàppale kon su ko defee faaw comme nga am qualité yooyu nga xam ne mooy tax nga mën a jëflante waaye soo amee qualité yooyu nag demul avant am démultiplier ay mahaaraat ay alaqatiya mooy euh, euh, euh, ay compétence relationnelle mooy nan ngay fexee ba am ay relation parce que loolu dinañ ci ñëw njëriñ li ñu bëri nag dañ koy dañ koy dañ koy desal ginnaaw am na ñu koy saboote sax waaye xamuñ xikma bi nekk ci ginnaaw loolu soo ko amee ba noppi faw nga am ay technique ay taxani ay technique yoo xam ne mooy tax nga mën a matale loolu waaye tamit il faut nga am ay aalaat muy ay outils outils yoo xam ne ay jumtukaay yoo xam ne di nga mën li nga bëgg nga di ko def gis nga nag léegi loolu ni mu amee ci mudiir bi noonu lay amee ci muallim bi dinañ wax tamit muallim dinañ wax tamit ay mahaaraata muy ay rôlam dinañ wax tamit moom compétence yi muy soxla dinañ wax tamit compétence yooyu moom it qualité yi muy am ba tax tamit mu nekk koo xam ne aussi des na mën a jëfa jë nu mu tuddati liggéeyandoog moom waaye tamit moom moom moom àllim bi dafay soxla ay technique soxla ay ay ay alaat muy ay outils mooy ay ay ay jumtukaay yoo xam ne aussi dana ko jëfandikoo ngir mën a ngir mën a réussir liggéey yaakaar naa loolu bu fekkee ne temps bi dina ci xaj ñu def ko xëy na buñ ñëwee ba ci buñ buñ tënkee ci mudir bi bu muallim bi dina yomb dañ koy def rek mara saxaab ndax moo mudir bi dafay am yoo xam ne dañ koy dañ koy nuroo <laughs> ndax buñ bu ñoom ñaar buñ ko amul rek jafe-jafe am comme suñ ko defee ci mu suñ ko leeralee ci mudir bi rek. maanaam day mën a leer ci mu ci mu àllim bi donc bokk na ci euh, mudir bi ay rôlam mooy moom mu xam ne bokk na ci li njëkk ci mu war a xam ne mudir soo koy misaal day mel ne rek saxaar mooy train locomotive bi muy bopp bi ak wagon yi mudir bi mooy bopp bi waaye train boo xam ne bopp kese la am ñëpp xam nañ ne amul njëriñ. parce que train li ñu koy doyee mooy mu mën a def marchandise wala mu mën a def ay wala mu mën a def mu mën a def mu mën a def léegi <laughs> bopp te bopp saxaar kese amul njariñ comme bopp bi muy locomotive bi faaw mu am ay wagon comme wagon bi aussi bu fekkee ne amul locomotive bu baax du mën a dem kon noonu rek lañ koy misaale mudir mooy kiy joxe direction bi pour muy pour mu pour mu mën a matale ay mahamam bokk na ci tamit mu xam ko bokk na ci moom mu xam ne moo am tanzimul madrasa wal muallimin moom moo war a nos école bi ak li muy laaj moo war a nos tamit jàngalekat yi organiser jàngalekat yi dafa am lu muy laaj yooyu yëpp dinañ si ñëw waaye aussi ma mahamatu idaaratul mawaaridil maddiya wal bashariya moom moo war a fexe ba organiser euh, ressource matériel bi ak humaine mooy euh, jumtukaay yi nga xam ne moo xam nit la moo xam matériel la moo xam lu di doon moom la war mu taxawu ko waaye aussi moom bokk na ci euh, ar riqaaba wa taq wa taqwim mooy moom li jëm ci wàllu contrôler ak superviser xam nga léeg-léeg ñaari ni nekk ci bërëb am kuy contrôler am ko mel ne day bañ contrôle bi mais gis nga mudir su assumé wut ay responsabilité di contrôler di superviser rek doonutul lim doon résultat du am waaye nag su su loolu jàllee moom may day contrôler pare di natt waaye tamit su contrôler ba natt ba pare dafa war a am tamit capacité mën a jël ay décision décision nag lu jafe la léegi loolu bokk na ci ay rôle mais rôle yooyu nag pour mu mën koo mattale faaw dafay am ay compétence compétence yi bokk na dafay war a doon koo xam ne day mën a def tactique day mën a planifier mu diir mënoo mënoo mënoo mënoo samp daara wala nga samp école wala nga samp société te amoo planification ma amoo xutatul amal maanaam planification bu leer fii laa bëgg a jëm damay joxe misaare ñun ñi ñëpp kenn du ci yéeg ci avion bu amul tableau de bord bu ñu la bi moo dàq dawal te avion bi amul tableau de bord xalaatoo cee yéeg parce que tableau de bord moo lay gindi ba yenn fu am pakk-pakk nga mën koo moytu bu ëllëgee bu jafe-jafe amee nga mën a xam euh, fooy jaar donc loolu mu diir bu ne war na mën a am capacité di def taxtit ci wàllu njàng mi mooy njàng mi nii laa bëgg mu tëddee si ñett at ci juróomi at <laughs> ndax ki nga jël pour nga natt jàngalekat bi ne ko yow li ngay def yaa ngi ci am résultat wala amoo ci résultat i faut nga am nattukaay boo amul nattukaay mënoo ko xam dangay ngay njortu rek te njortu nag li ñuy wax ne kuy fëtal moom fuy fii rek ngay mujjee fëtal yaakaar naa mm, olof yi man waaw mooy mooy ku jaaru ci yoon wi daal. au lieu nga jaar ci yoon wi nga nga xool fu la neex rek nga jaar dangay mujj ne fuy fii waaw fuy fii rek ngay mujje loolu nag il faut nga nekk koo xam ne dangay nga mën a planifier planification nag yamul rek ci ci ci njàng mi kii bi kon il faut mu mën a planifier xam ne moom li mu bëgg ci jàngalekat bi moom bëgg na su fi xale defee ñetti at wala mu def fi ñeenti at wala mu def fi euh, juróomi at lii laa bëgg a def ci moom fii laa bëgg mu yem bu ko defee loolu tamit nga def ko par par at def ko par par trimestre muy ñetti weer def ko par at mun nga dem sax ba def ko par bis mooy bis bu set lii laa bëgg xale bi jàng loolu il faut nga planifier ko moo may waral jàngalekat bi su ñëwee xam fi muy jaar. kon soo amul capacité planifier soo ñëwee ak jàngalekat bi yëpp da ngeen ni tato da ngeen ni da ngeen ni làmbatu planification bi tamit dem ci finance bi ñaata laa soxla la mooy sama budget pour ma mën a def nangam ak nangam parce que soo amul sa budget booy wax ak jàngalekat sax léeg danga ko wax loo xam ne su weer dee doo ko mën wala loo xam ne mënoon nga lu ëpp loolu mais amoo ay information ci sa finance ba mën a jël décision comme lépp dafa lëkkaloo domaine yëpp dafa lëkkaloo. parce que tey finance bi soo planifiéwul ba xam sa budget xam li ngay am li stop tey ma ne diw naa la fay juróomi junni ci misaal te man fekk mën naa ko fay fukki junni parce que awma awma finance finance da nga war a am tableau bi am information yëpp loolu tamit dana neexal waxtaan dana tax kii li mu koy wax lu ngeen yàgg yàgg yàgg du dañ ndax gëstu nga ba xam ne yow weer wu ne mën nga koo fay naan ba boo ko xasee wax da nga koy te loolu dinañ ci ñëw day bokk ci liy tax ay nit seen ànd mën a neex. mooy wax li ngay def ba pare def li ngay wax donc boo defee taqtit boobu ba ci bërëb bi xale yi nekk nga xool logement yi ñaata nit a ca war a nekk ba nga xam ne parent bi sax su ñëwee ëllëg mu ne la man de néeg bi fukki nit laa ci fekk nga ne ko ñaata nit laa waxoon parce que loolu lépp war nga ko mën a leer ñaata lan lay am togg bi resta menu de restaurant bi xale yi lekk sax bu ëllëgee buñ na nangam nga ne ko lii kat parce que même parent bi ñëw war naa mën a am planification ci xam doomam lii lay lekk nii lay tëddee kii bi nii lay demee xam nga ànd njëlbeen nga des koy xam loolu su amee mudir bu du am jafe soo ëllëgee dina am fu sukkandiku foo xam ne su ko parent bi waxee mu ne ko ah loola waral dañuy bañ sax nit ñëw ci internat te waajur bi ñëwul visité ngeen toog ngeen def ay ay ay ay ay ay ay weccoo yoo xam ne ay échange yu am solo loolu dafay am solo bu loolu jàllee mudir bi bu defee taqtit ba pare nag xam naa dañuy gaaw rek day def tanzim mooy day organiser foofu nag la problème bi nekk naa arajul munasib fi makaani munasib maanaam l'homme qu'il faut à la place qu'il faut lenn lu ne nga xam nag ki ko mën nga jox ko ko loolu nag dafa jefe bëgg naa jàngalekat bëgg naa nangam bëgg naa ko def nangam bëgg naa mais jàngalekat bi ma ko il faut nga am lu ñuy tuddee daftarul maham moom mooy cahier de charge léegi léeg tamit entreprise yi soo ko demee dañ koy tuddee fiche de poste mooy ki ma bëgg a jël lii laa bëgg mu defal ma lii laa bëgg mu defal ma lii laa bëgg mu defal ma lii laa bëgg mu defal ma ci point yépp mu leer ci yow soo leeralee loolu nga bëgg mu defal la ba pare moom mu diir euh, moom moom moom moom jàngalekat bi ñu tuddee rek ñu koy tuddee daftarul maham muy kay de charge nga leeral ko ba mu leer loolu nag nga def lu ñu tuddee entretien entretien dafay am lu ñu tuddee fiche d'entretien mooy nit ki su ñëwee ngeen war a waxtaan booy waxtaanee nit ko war ko jël war nga am ay maayir war nga am ay critères yoo soxla d'abord xool nga laaj ko ci ndax moom matale na ko bu fekkee ku mës a jàngale mustawaa bi mu amee qualité yi mu am yooyu yëpp war nga koo mën a xam ci sa fiche nga noté yum na la ci am na ci nga laaj ko tamit ni nga bëgg a doxal nga wax ko tamit ni nga bëgg a doxalee jox ko cahier de charge bu mu liir yëpp su fekkee mënu koo liir tamit nga di ko ko liiral wala nga ku leen ko liiral ba leen si ne mu gis ne mën na ko yow nga wax ko lii su ko defee lan moo la ca war yow directeur bi kon tanzim mooy soo defee taxtiit ba pare tanzim ngay def tanzim nag mooy lu ci ne nga xool ku ko mën nga jox ko ko pour nga xam nit mën na ko nag il faut nga nga gëstu ko soo defee tanzim ba pare moom la tuddee organiser ngay contrôler nag contrôler nag dafay laaj nga am ay outils ay aalaat mooy ñëw na nga xoo am ay siis yoo xam ne euh, liggéeykat bi waxtu yi muy dugg dana ko mën a pointé waxtu yi muy wàcc mu pointé ko loolu leer ci yow su fekkee ne yaa ngi koy contrôlé tamit war na am ay fiche xale yi nga koy jàngal war nga mën a xam su la waajur bi laajee ndax yow la waajur yi dénk te jàngalekat yi dañuy dem yow yaa fi des te su jàngalekat bu bees ñëwee war nga ko defal état des lieux mooy war nga ko wax fi liggéey bi toll parce que yaa ko war a peeg soo amul outil yoo ko peegee il faut yow nga créer outil yooyu jàngalekat bi da ko war di remplir du ko xam comme contrôle outil yooyu du ci mën a ñàkk soo paree nag ngay ngay évaluer muy tax yi nga évalue ko mooy li nga ko doon liggéeyloo ci ñetti weer yi fu fan la jóge ak fan la yegsi bu ko defee nag loolu dana la permettre nga xam moom résultat yi mu am la mooy pourcentage bi mooy nisba am al nisba al al al yooyu mu xam. taux de pourcentage su fekkee ne koo joxoon fanweeri xale ñaar fukki xale nga nga nga natt ko gis ne moom kat xale yi li ma ko waxoon ne ko nangami xale war na ñoo jóge fii yegg si fii war na ñoo mokkalee nii nga xool loolu lépp ñaata xale ci réussir par exemple jàngalekat bi nga jox ñaar fukki xale juróom ñaar fukk lan ko ci laajoon ñaar fukki ya baax juróom ya des jàngalekat boobu bi ñu góorgóorlu comme mun naa am juróom ya ca des ñoo am jafe-jafe mais nga jox xale ñaar fukki xale jàngalekat ñaar fukki xale juróom juróom rek réussir si comme foofu aussi war nañoo xool lan moo waral loolu ndax ñaar fukki yëpp mënuñoo amandoo jafe-jafe soit jafe-jafe bi mi ngi si jàngalekat yi ci jàngalekat bi même su nekkee ci xale bi mun na am jàngale ko tamit xamul yoon yi muy jaar parce que am na lu waroon a jiitu ci moom te jiituwu ca ba tax xale yi échec loolu tamit nga nattukaay la soo nattee nga jël nag li tuddee war ngaa ma bi gën a doy li ñuy wax ne manager c'est décidé gis nga jiite li ci gën a capital mooy ngay jël ay décision jël décision dafa dafa doy waar maanaam dafa nekk loo xam ne moom la ñuy doyee njiit moo tax balaa ngaa jël décision war ngaa mën a am information yëpp ba pare tamit am lu ñuy tuddee intelligence émotionnelle mooy yow bi ngay jël décision leer na la du bu ko jëloo ko ci émotion mooy mer naa wala def naa ndax damay joxe misaal tey ñetti weer jot na ma jël ñaar fukki xale juróom fekk ma jox ko sëñ Mourou ma ma di leen natt wala ma jël fanweer may natt xale yi gis ne ñaar rek lañ seen jàng baax wala juróom xam nga loolu ci mudir du la neex comme am nga émotion mooy am nga naqar am nga lu la métti mais na ngay amee intelligence émotionnelle ba waxtaan ak nit ki te lépp nga teg ko ci ma problème am na dëgg la <laughs> ñaar fukki xale ak nangam nga gis ne seen jàng am na jafe-jafe ci ñetti ak ñetti weer énergie bi ci am li parents yi fay. énergie bi ñu ci def coono yi ci xale yi ak jàngalekat bi résultat amul comme war nañu wax loolu neexul mu diir bu la wax ne loolu neex na ko da ngay naqar jàngalekat bi tamit loolu neexul bu ko defee loolu il faut nga am lu loolu moo ñu manqué ñun ñun ñu bëri mooy soo soo meree wala nga kontaan rek yow mën a téye sa bopp ba xam ni ngay waxee li jaadoog li jaaduwul ko defee loolu su nit ki ñëwee nga jox ko kàddu tamit ah lii de laa seetlu ci natt bi léegi moom mu jox la bu ne la lu ñett ñaar fukki xale amuñ kii mais ñaar xale yooyu yëpp xëy na du ñuy jàngi si wala dañuy bari feebar wala sax bu dee suñu daar yi nga xam ne day dem jàngi di wàcc buñ ko dàqee balaa ñëwaat ci misaal wala xale bi nekk ay jëf bu la waxee nag loo xamante ne bi leer na ne lii ah xam-xam nangu na ko xel nangu na ko est-ce doo ko jàpp da nga koy jàpp loolu nag foofu tamit dafay am ay qualités yu ñuy soxla ci directeur bi mooy capacité de communication mooy mën a communiquer communiquer dafa am ay règles communiquer dafa am ay règles waaw yaakaar naa sax même ñuy jàng ay mu batin ay na xaru kii bi la almoxsanaat allafziyaat maam nit ki ni muy waxee sax ak ni ngay communiquer nit dafa am solo xam nga nit su ñëwee bu ko wax li bon lépp jàngalekat bu ñëwee bu ko wax li da ngay wax même sax jàngalekat bi bu defoon zéro pour te mu am méritu huit heures midi muy muy ñëw ne ko ah jàngale bi dafa métti macha allah jàmbaar nga parce que am na méritu huit ba midi rek mu ñëw nekk ci xale yi nga wax ko ko ba pare bu commencé xobali ko nag nga door ko wax li baaxul bu ko defee mu nangu parce que waxtaan li am solo mooy yow miy waxtaan communication balaa nga koo def ngay am ay objectif d'abord man jëmm ji may wax ak lan laa bëgg mooy damaa bëgg a changer comportement am damaa bëgg nangam damaa bëgg nangam su boobaa nag da xool yan stratégie yoo xam ne soo ko defee di nga ko mën a réussir ngir loolu mën a am donc capacité à communiquer boobu faaw dafay am bu ko defee nit ki su ñëwee tamit dana la wax wax lu leer bu la waxee loo mën a dégg fa la su la waxee loo comp loo d'accord tamit foofu tamit li ci ëpp solo mooy nga am dëggu bañ a nangu lim la wax man nga nga nga nga boo bañee tamit nga jox ko ay ay solution wala ay exemple donc loolu soo nattee ba pare faaw muy am mooy ngay décider. il faut tamit ngay sanctionner sanctionner sanction moom dafa am yu positif muy ijaabi ak yu négatif xam nga nit ñi seen sanction dañ naa boo ne sanction rek nit ki day day jàpp ne ci côté bu baaxul bi la <laughs> mais nit ki def résultat boo koy sanctionné danga nga koy jaajëfal ah tas jox ko maanaam encouragé ko bu baax motivé waat ko euh, su fekkee ne tamit da koy dolliwaat yeneen responsabilité wara nga koy dolliwaat koom ca la ngeen seq wala nga utal ko yeneen euh, ay yeneen faveur mooy yeneen yoo xam ne war na ko mën a am te kontaante moo ko waral ba pare nga laaj ko nan la def ba def lii ndax loolu tamit dana la dimbale yow bu ëllëgee sooy formé keneen ku ko mënu fekk moom wan na la ni mu jaar boo ko xamoon baax na soo ko xamutoon tamit dana la dimbale nga mën cee jëriñ keneen ndax ñiit it bul bañ jàng ci ki la ki nga ki la ndax lépp moom yàlla rek ko xam donc loolu lu am solo te liggéeykat léegi dañoo toll ci jamono joo xam ne dañooy wax ne collaborateur dañ koy tuddee mooy koo xam ne da ngeen di collaborer bu ko defee bu fekkee ne nga sanction bu fekkee ne baaxut te mi ngi koy door a def nga orienté ko bu fekkee ne ku mënut la bu dee ku bëggul nag kooku moom jëllal yàggal jëlli la te gis nga ki bëggul neex naa xam ne bu fekkee ku bëggul wala moom xam ne ne lii lii rek la ci mën xam nga nit ki ñëw ne la man nag lii laa mën waaw nga bëgg mu mën leneen kooku mënul lii lu yàgg-yàgg da ngeen di ko sanction bi mooy ngeen tàqali ko wala mu nangu nga formé ko nga nangoo ànd ak moom ngeen fu ngeen jàppalante bu ko defaatee defaat ko nga xam ne munu ko nag bu ko defee nga jël say décision ngeen tàqali ko moo tax xusnu muamala yaakaar naa tekkiwul ne ànd ba faaw loolu tekkiwul ne bañ a tàqali ko mais bu ngeen di tàqali ko nan di tàqali ko est-ce bi ngeen di tàqali ko ci mbañeel la ci kii déedéet si principe ngeen tàqali ko mooy mag yow dañoo déggoowut ci nàngam ñu tàqali ko tàqali ko bi daal di rafet ah yaakaar naa sëy kenn du takk soxna kenn du takk soxna te fekk da ngaa bëgg a tàqali koog moom mais suñ demee ba jafe-jafe am muy incompatibilité d'humeur mooy déggoo déggootal dañoo fal imsaaku bil maaruf aw tasrih bi bi ihsaan kon ànd leen ci njëkk wala ngeen tàqalikoo mais tàqalikoo bi na rafet ñun nag jafe-jafe bi ñu am mooy bu ñuy tàqalikoo day day day mel ne dañuy am ay jafe-jafe ba dootuñ mën a àndaat ba nit ki su génnee sax day wax loo xam ne ca kee kee di wax ci kee kee di wax ci loolu nag moom waxuma la ci wàllu liggéey mais dafa rafetul man waxuma sax ci ak njullit mais dafa teguut ci yoon loolu nag li ko indi mooy ni ñu àndee maam kenn ku ñu dafa xamut li ko war ak ni ñuy commu ni ñuy waxee communication dafa am solo nit soo ko dégluwut doo mën a xam damay joxe benn exemple ku ñuy wax John Maxwell moom moo bind les 21 lois irrésistibles du leadership maanaam ñaar fukki xawaay di ak benn yoo xam ne kuy jiite ku ne war nga koo matale muy lu jafe nag dafa wax ne déglu bu dara amee kiy liggéey ak ki muy liggéeyloo ñuy dégloonte loolu tant que amul te déglu capacité la ñëpp mënuñ ko nee na dafa mës a dugg ci train di di génn romb arrêt bi am am euh, benn waay bu ci dugg ak ay doomam bi xale yi duggee di perturber train bi waaye waa ji moom mi ngi toog rek jàpp jàpp njàmburam sëgg xale yi léeg ñu xëcc ci journalu nit sànni ci fenêtre bi léeg ñu bëree léeg ñu daanu ci nit léeg ñu xëcc saagu nit waajee ngi noppi rek nee na train bi yëpp mere ko nee na comme ñoom ñaar ñoo dend moom John Maxwell nee na moom mu mere ko mere mere mere bu métti sax ba mën a du ko muñ fëgg ko ne ko mais yow defal dara sa doom yi nekk ci train bi di perturber lu ñu ñu def nee na waa ji mel ne lu dellusiwaat daan na ko wax nga dëgg de man de damaa jóge ci hôpital bi léegi ñoom seen yaay dafa gaañu ne John Maxwell nee na man dama koo mere woon mais dama commencé di ko yërëmaat maanaam damaa changé comportement ci moom mooy léegi mën ne ko waa man lan laa mën a def pour jàppale la léegi moom xoolatu nu mais day xool nu mu koy dimbale parce que xale boo xamante ne bi yaayam dafa gaañu baay ji ànd ak ñoom guddi mu war leen a wax buñ ko laajee ana suñu yaay mu war leen a wax ne dafa gaañu yooyu yëpp nekk ci boppam kooku war nañ koo muñal gone yi gone yi soo ko xoolee fu bëree bëri da koo mën a loolu moo ñu tuddee empathie muy lu am solo mooy ngay yëg loolu nag lu ko indi mooy communiquer da koo nangoo déglu gis nga bi mu ko waxee rek dafa changé paradigme maanaam ni mu doon gisee dafa changé woon ca saasa kon loolu dégloo ko indi mu ne nag mm, loolu dafay bokk ci ñaari nit di déglonte ku ci ne di xam sa moroom fi muy waxee mais confrontation moom bu amee rek déglu dootul am mooy comme débat politicien yi nit ñuy def mooy kenn du déglu sa moroom ku ci ne yaa ngi bëgg sa morom daane ba nga dammat ko nga xam ne ñoom dañuy débat nii rek di dem mais c'est pas du débat bu constructif maanaam du débat boo xam ne ba comme lu ñu koy waxee day tabax déedéet kon dañuy dañuy dañuy dañuy dañuy bàyyi foofu mudir bi dem ci muallim ndax damay ragal temps bi du ko mat te buñ ñëwee ci muallim xëy na yu bari duñ ci yàgg ndax muallim bi moom tamit dafay am ay ay maham moom mooy dafay am ay ay ay comment dirais ay rôle yoo xam ne faw moom it da ko war a xam ndax dafa am benn benn benn benn benn bindkat wala boog benn njiit wala manager dafa waxoon ne bëgg naa am ay relation personnelle mooy ay relation yu baax yow mi may liggéeyal waaye nag faaw yow sa tamit nga mën a def li la fi indi ndax nit bu fekkee li ko fi indi defu ko loo bëgg bëgg jubóog moom nañ wax nañ du mën a nekk kon loolu aussi dañ ko war a dañ ko war a bàyyi xel jàngalekat bi bokk na ci ay mahamam ay rolam moom moo war a nos xalxa bi bu dee parce que mudir bi moo war a organiser école bi mu jëmmi xalxa bi jàngalekat bi moo ko war a taxaw li muy laaj yépp bu fekkee ne jox nañ ko bërëb jox ko équipement ba muy ànd ak moo xam ay basang la wala mokket lu mën di doon daal ak ya ca aju la ca des nag taxawu gi moom la war nag bu ñëwee moo war a fexe ba muy set moo war a fexe ba muy teg ci yoon parce que xalxa ak xale yi ñu la jox nañ koy organiser loolu nag mën gis naa ne léeg-léeg day am jafe-jafe loolu nag ca njëlbeen nga nit ki dafa war a xam bu may jàngale lan mooy samay rôle man est-ce que xale bi jàng rek lañ seq déedéet. dinañ ci ñëw léegi comme xalqa yaa ko war a nos ba mu tegu ci yoon yow tamit yaa war a tanzim élèves yi di leen idaara ñuy jàng jàng mu baax ba pare tamit yaa war a am lu ñu tuddee veille pédagogique mooy yow sa jëmmi bopp sëhru pédagogie fi muxtalafil majaalaati tarbawiya xam ne njàng mi lenn lu ci ne nii lañ ko war a defee nii lañ ko war a defee lii lay laaj waxtu wi lii la lii lii la yow yaa koy nos ba résultat amuñ ci am pédagogie bi ngay utiliser ba xale bi mën a kii yaa koy def xale yi moyens yi matériels yi ñuy jàngee yaa war a saytu ba xale yëpp di ko am waxuma yaa koy jënd de mais yaay fexe buñ ko amee ak nan nga leen di tàggatee ñuy toppatoo matériel di ko kii parce que saa yu xale amul bagage nga sàgganee ko bu ëllëgee bu résultat amut dañ la dañ la ciy duut baaraam te résultat pour mu am il faut constance am mooy xale bi. buy jàng tamit matériel mu du ko am à temps réel par exemple xale boo xam ne dafa xëy yorut bagage ba muy midi mu wàcc tëb na bind tëb na bind du tari bind du tari raxas du tari nafar léegi nag su boobaa yow su fekkoon ci ñetti weer lañ lay nat <laughs> mun naa mu am tuuti retard loolu nag suy répété wu xa njàngum xale bi dafa yéex nga dem ba booba na nga ne xale bi da duy am téere loolu yow jàngalekat bi bokk na ci ñi nga xam ne responsable nga ci parce que yow yaa war di xale bi yaa war a fexe tamit ba muy jàng si heure di wàcc loolu tamit yaa war a fexe ba objectif yi nga xam ne école bi am na ko ci résultat xale bi di mokkal ba pare ànd koog yi mu war a àndal yow yow loolu yow la war loolu tamit il faut nga am yow ay maharaat al mihna euh, mihaniya moo am nga loolu foo nga am ay compétence professionnelle am ay qualité relationnelle compétence professionnelle yooyu bokk na ci nga am xam-xam bi d'abord xam-xamu jàng alxuraan ba pare mën koo jàngale ñaata nit a mokkal alxuraan te mënuñ koo jàngale bëri na parce que dañu koo mokkal dem defi leneen jàngalewuñ ko comme il faut nga am xam-xam bi mën koo jàngale te jàngale alxuraan tamit am yu muy aajoo ndax dafay soxla nga si maîtriser psychopédagogie yaakaar naa am na euh, thème bu ñu ciy waxtaan ci kanam xoola ba ci législation dëkk bi sax nga xam loi yi nga xam ne moo bu ma juumee ci njàng. moo tegu sama kaw parce que ñun tant que ñu ngi nekk xale yi ci suñu biir daara parents yi wóoluñu amul jafe-jafe mais bis bu dara amee man lan moo ci sama lan moo ma ci war a war il faut bu leerul sa bopp mooy waral léeg-léeg ngay jël yenn risques yi bay def yenn njuumte yi mais soo xamee euh, fi législation euh, toll mooy mooy mooy wàllu yoon ci réew mi ak ci bitim réew xam ne tamit dañu toll àdduna boo xam ne ma la muy mondialisation amul benn réew boo xam ne yilif nga sa bopp. tey su ma defee dara bu état bu état sénégalais bëggee bañ te ONG yi nanguwuñ sañut bañ ndax dafa signé ay convention nga xam lenn lu si ne tamit lan la mooy waral léeg-léeg ñu jàpp nit ñëpp wax kilifa gi gën a mag wax mais nit ñi duñ ko sañ a bàyyi parce que seen promotion da caa aju te ñoom tamit buñ bàyyi rek eh, leneen mën na leen cee daal loolu tamit nga xam lan moo ci rëy lan moo ci rëyut ndax sëñ Ablaye nee na koo gis mu am lu ko naqari oyofal lu diis moo ko teg mbaa diisal lu mbaa roy loo xamul. wala toppandoo ko yamut ak may li ci ëpp na mooy nga oyofal lu diis fekk lu diis gann yow nga oyofal ko toy loolu tamit indil nañu ay jafe-jafe yu bëri kon soo amee xam-xam bi tamit nga am lu ñu tuddee ak sulta muy l'autorité mooy doomu aadama boo ko bëggee yilif di ko jàngal il faut nga am kilifteef ci moom kilifteef nag ñu bëri dañuy foog ne dóor wala kii moo koy maye déedéet loolu ay jikko la rek taxawaay la doxin la yooyu yëpp su dajee xale bi nawloo la ba pare wóolu ba pare xale dafa doy xale boo koy jàngal doon koo xam ne njàngale mi yow da nga ciy tricher wala sawaroo ci day mel ne suñ borom da koo foto ci gëti xolom moom it noonu lay mel waaye su gisee nga am ci juhdu am ci pëseef am ci bëgg am ci sérénité am ci sellal xale bi fu mu jaar da koy bëgg ba pare daf lay respecté yow mais bu fekkee ne moom gis na ne moom rek ngay laaj te yow doo jëf foofu tamit jafe-jafe dafay am il faut tamit nga am lu ñu tuddee éthique muy axlaax mooy mooy métier mu ne dafa am ay jikko yu muy laaj ay doxin yu rafetlu ak doxin yoo xam ne kenn rafetluwu ko beneen bi tamit il nga am nizaam mooy l'ordre <laughs> fawda kii wax na ko sànq sëñ kii am na moom ci fawda rek lañ mën a dund te pourtant fawda daa méttee méttee méttee métti léegi nag ordre mooy nit il faut nga nekk koo xam ne da ngay da nosu daal ndax faaxidu shay'in laa yu'ti nit lu mu amul du ko joxe soo nosuwut mënoo nos xale bi il nga nekk ku am méthode xale bi bindam heure yii la ba nga xam ne yow soo absenté woon xale bi bu ñu ko tegee ci daara ji day day day day mën a day mën a liggéey looloo waral ñuy naan euh, yow ndax am nga formation académique wala boog formation initiale mooy jaar nga ci bërëb comme ba màgg xam nga école ni ñu koy nosee wala daara ni ñu koy nosee ni ñu fay jàngalee la lay laaj organiser nañ la ba nga xam parce que ñun ñi ñëpp daara yi jaar bu ñu organiser wutoon bañ xam ne taat bind nii lañ koy defee raxas nafar lii mooy njëkk lii mooy mujj lii waxtu wii la duñ ko mën a am loolu nag i faut yow nga am ci yoon wu leer woo xam ne xale bi bi nga koy jàngale da nga ko ciy formale waale ci ordre boobu beneen bi ba ci kuy génn sax tàggoo ku bëgg a def dara nàngam ba ci xalxa bi kenn ku ci ne bërëb bi muy toog bu fay jóge yow nga xam ko téere bi muy jàngee yooyu yëpp ci ordre la bokk ba ci yow ni ngay mel ni ngay jàngalee xale yi nga bañ doon koo xam ne nitu euh, humeur ngay nekk mooy su ma su ma jekkoo tey wala kontaan naa wala yow daal xalxa bi mi ngi aju ci ni nga mel kontaan nga mer nga sawar nga tayal nga loolu tamit du liggéey il faut nga am ku ne ordre il faut nga am tamit lu ñu tuddee imagination mooy taxayul mën ne imaginer ndax dañ laa jël aussi pour yow ngay solutionner ay problème mais jàngalekat nga jël ko mënu laa leeral ne la bu jafe-jafe amee moom day ñëw rek xëppaat la jafe yi déedéet léeg-léeg bu jafe-jafe amee mën ngeen see dimbalante mais am na ci yoo xam ne da ngaa yaakaar imaginer mooy xale bu bu neexul xel xale bu nanguwut jàng xale boo xam ne jàngam dafa yàqu xale bu am jafe yow yan imagination ngay am ak yeneen sax yoo xam ne bokkul ci diggante téel a kii mais yeneen la nga am capacité yooyu ba bu ñëwee nga mën koo def beneen bi tamit nga am lu ñu tuddee compassion mooy alutf di ñeewantal xale bi nit ki même bu dul xale sax nit da nga war a am ñeewantal rek. waaw xam ne xale nit euh, nit la koo xam ne léeg-léeg mu am lu ko neex léeg mu am lu ko métti léeg mu sawar léeg mu tayal léeg mu am ay jafe-jafe te du la ko mën a wax nga mën a am capacité di jëli loolu ndax tey léeg ngay ja man léeg ma toog ba mu yàgg xëy bëgg a jàngale ji du ma mën a jug maanaam walla ma am feebar boo xam ne mënu koo tëdd mais leer na ma ne man tey damaa feebar ma daal di tëdd loolu nag. jàngalekat bi niñ ko koy nangulee di ko nangulee mudir bi noonu lañ ko war a nangulee gone gi bañ a mel ni man rek day tapale dama jàngi parce que foofu am nga yéene dëgg la mais tamit doomu aadama suñ borom da koo bind looloo waral nag ñuy wax ne bi nga amee temps xale bi di wér ngay am jàmm góorgóorlu loo mën a am si résultat nga di ko def pour su feebar ñëwee wala ngànt am wala xale bi tey kontaanut wala jékkuwut wala nangam fekk yow anticiper woon nga ca jamono yi nga xam ne yéen ñëpp yéen a ngi jekku moo waral boo sawaree ñuy bëgg ngay def li nga mën lépp waaye yow nga sawar rek ne tey moom damaa sawar ñëppay sawar ci force tey damaa tayal ñëppay tayal ci force loolu it du boo amul euh, nu mu tuddati euh, intelligence émotionnelle doo ko mun a doo ko mën a gérer beneen bi tamit il faut nga nekk koo xam ne da ngay am patience muy as sabru mën a muñ dafa am ku ñëw wax George Hardy benn inspecteur la bi ñuy def bi ñuy tabax école moom bokkoon na ci ñi nga xam ne. Euh, ay inspecteur lañu mais dañ leen doon déglu seen xalaat ndax bokk na ci ñi ne pour ñu moom nit ñu ñuul ñi walla africain yi il faut ñu defar fi ay école moom bokk na ci nga xam ne école fii ci suñu réew ci moom moom bokk nañu ci jouer rôle bu rëy rëy dafa waxoon ne en transforme pas l'âme des individus par décret maanaam nit kenn du transformer maam kenn du soppi nit ci kun fayakun nit nga bëgg koo soppi rek daa daan ne ci saa su mu soppeeku déedéet. moom moo waral ñoom seen njàng day yàgg da ngay def 6 ans def 4 ans def trois ans def université selon branche bi nga def pare spécialisé wu door a ñëw taxaw donte nag àdduna weesu na foofu léegi waaye lu mu weesu weesu foofu jàng moom kii jàngale il faut mu mën a muñ mën a muñ beneen bi tamit il faut mu am chaxsiya mu am caractère waaw personnalité boo xam ne vraiment ku ko gis tamit xam ne kii yarkat la daal. ci ni muy solo ni muy waxee ni muy doxee loolu lépp dafa am solo day am beneen bi tamit mu am shahwa mu am plaisir gis nga doomu aadama soo ko doon fay milliard ak di ko neexal ak li mu bëgg lépp nga defal ko ko te li muy def bugg ko munoo fexe ba mu def ci résultat en général da ngay gis koo xam ne day nekk ci dara du ca am dara dara dara léeg-léeg sax da cay def alalam waaye bëgg gëm ko bëgg moo waral mu ci def ay résultat yoo xam ne ku ko gis danaan waa sa kii de lim ci am waxuloo ko. fekk moom daf koo bëgg moo tax jàngale pour nga réussir si il faut nga bëgg ko boo ko bëggul ko ànd ak da ngeen am jafe-jafe kon kon yooyu bokk na ci qualité yi nga xam ne jàngalekat da koo war a am. mooy asifaat a shaxsiya qualité personnelle yi ma war a am ak qualité relationnel yi xay na lañ fàtte woon mooy mudir tamit boo ubbee daara. faw nga xool autorités yi nekk ca koñ ba ginnaaw sa jëflante bu rafet ak parents yeeg liggéeykat yeeg nàngam daara ji foo ko ubbi war ngaa dem ca ka fa toogal ko a quartier bi muy muy muy chef de quartier bi nga waxtaan ak moom enregistré turam enregistré numéro am dem ca commissaire ba enregistré turam enregistré numéro am dem préfet ah looloo war a sax soo bëggee ubbi daara yaakaar naa da ngay def ay demande yóbbu procureur na ko yëglu maa ngi fi loolu am na lu muy jëriñ de su jafe-jafe amoon bu ñu xoolee yóbbu la ci procureur li mu lay njëkk a laaj man yow kan moo la jox ndigalu ubbi daal kan moo la jox ndigalu yor doom yi jaamul kan moo la jox kan bu dee fii moom amul problème boobu mais bu dee fii suñu dëkk ba moom bu jaamu rek di am damay wax ne mi ngi mel ne kuy dawal oto te amoo kii nu mu tuddati bagage boobu kii assurance waaw su jàmm di am mën naa am jafe bañ am jafe-jafe mais su problème amee moom jafe-jafe di ñëw. kon bu loolu amee tamit nga dem ca imaam ba waxtaan ak imaam bi am naa fi daara imaam bi xam la ndax bu dara amee ñoom ñoo lay seere te loolu lu am solo la te buñ la xamee rek yow yow yow am nga chance euh, beneen bi mooy borom bitig ba sax dem fa ndax léeg-léeg nga ñàkk dépense ah nit du mën toujours kay gas di déboucher foo sax de waxtaan leen nga jël numéro am ba boo fa nekkul sax dangay woo diw demal ci sama bureau wala ci sama néeg numéro sàngam nga woo ko mu débouché douche bi loolu relation moo ko maye am déet demal ci borom boulangerie ba demal ci demal ci demal ci bul bàyyi kenn koo xam ne personne ressource la bul xeeb kenn parce que ñooñu après danga leen di soxla boo fa nekkut ba ma ci électricien ba man bërki dem bu toog naa bu guddi ay minuit wallaay azim fekk feet feet la nii si yaakaar naa ci feet gi la man daal xaw ma fi ma toog nii di wir rek sama benn prise di saxaar saxaar bu metti sax ma dem coupé xaw ma lan la ma wo ah, sama électricien bi Alioune la mu ne ma maa ngi ñëw léegi mu ñëw defaral ma ko ci guddi gi daa di dem loolu relation moo ko indi même bu ma fa nekkul soxna yi wala ñoom ku ci jaaxle ah, xam nga koy woo ci nàngam waxin la mais loolu bu ko xeeb beneen bi yaakaar naa sëñ Ablaye moo ko na wax wala waaye ku ko mën di wax rek wax ju am solo la. mooy kilifa bokk na ci sañ njaboot bu ñu jaaxlee seen xel dem ci yow mais am kilifa koo xam ne saa yoo jaaxloo dem ci moom que moom amul benn capacité pour mën la lijjanti say problème loolu tamit baaxul loolu moom jàngale jàngalekat ak diir a ci yam jàngalekat ay ay ndongaam bu ñu amee jafe-jafe war nañ koo mën a mu diir bu ay liggéey liggéeykat wala wala ak njabootam amee jafe war nañ mën a interpeller mu mën ca dara mën na ko bañ a mën mais mu xam noo xam ne soo fa jaaree réussir loolu moo waral suñ kilifa yi sax di am ay relation yoo xam ne ñoom soxlawuñ ko mais seen ak njaboot a tax ñu koy ut ndax njaboot nattu la de kon lu am solo la ci côté boobu beneen bi tamit ñu toll jamono joo xam ne euh, sociologue yi boog wala wala wala wala wala psychologue yi duñ ci mën di wax rek dañoo am fu jamono tollu ñu xool ne àdduna euh, dafa am lu ñuy tuddee ay génération ba ci biir bërëb yi ñoom bi ñu xoolee ne génération yii léeg-léeg ñu am ay jafe-jafe ñu ne ah la moo indi jafe-jafe yooyu ci lañ catégoriser nit ñi ci ay génération biñ catégoriser nit ñi ci ay génération euh, xam naa dañ ciy jaar ci lu gaaw génération yooyu ñu utal leen ay tur ndax ñoom it dañoo am ay jafe-jafe ci seen i ànd mooy dañoo gis ne ñiy liggéey ak ñi ñuy liggéeyloo déggootuñ lu waral ñàkk déggoo googu am na ah, mbir waaw ngeen lii indi ñàkk déggoo googu mooy génération yi dañoo bokkul te da ngay gis kiy jiite bëgg a def ña jiite ñëpp ndax dañu naan nit sooy yar ay ay gàtt benn bant moo leen yar waaye sooy yar ay aw nit ku ci ne ak façon bi nga koy yare maanaam façon bi ngay jëflante moom. ñu gis ne dafa am ñu ñu juddu diggante 1986 ba 1964 ñoom dañu leen tuddee ay baby boom boomer mooy ñi nga xam ne ginnaaw guerre mondiale bi lañ judd. ak crise économique ñooñu bu ñu daan liggéey dafa am lu daan tax ñuy liggéey am ay bëgg-bëgg am ay jikko am noo xam ne daanañ ko nangu am loo xam ne daawoon kañ bañ kooku soo ko bëggee àtteeg génération X wala génération Y wala génération Z da ngay am jafe-jafe ñu jël ne génération X mooy 1965 ba 1977 moo tax booy jël aw nit ñu lay liggéeyal il faut nga xam seen date de naissance. xam kii ban tranche de génération la bokk danga mën a xam kii na muy xalaate mun na am nag loolu du réalité bu am fépp waaye mën naa am loo ca jëfandikoo xam nga léeg-léeg boo jëlee benn dara du toujours noonu lay mel ndax yaakaar naa dañoo toute règle a une exception li kulli xaaidatin istisna am na yoo xam ne nii ay règle générale mais am na yoo xam ne nag bokkul mën nga ko jëli jàng ko mais du doon réalité mais léeg-léeg nag am si yoo xam ne moom kenn du ci mucc àddunaay toll foofu te yooyu xëy na bu fekkee ne jot am na dinañ ci ñëw boo ñëwee génération Y ñoom 1978 ba 1994 sama maas gi ci lañ bokk boo gisee ñu def ko Y sax dañuy wax ne ñoom ñooy génération écouteur ni écouteur daanaka koo ci gis rek moom mi ngi takk écouteur loolu waxin la am na ñu ne. dafa jóge ci waay waay biy jóge ci anglais mooy pour pourquoi mooy ñoom looy seq ak ñoom dañ laan laal lu tax waa dañoo soxla sens dañ lay laaj lu mu doon dañ lay laaj lu ñu ciy am lu tax ñu du ko def lan moo lan moo lan moo lan moo lan moo te lu ci ne da ngaa war a am tontoom loolu tamit dafay am nga soxla ko beneen bi dafa am lu ñu tuddee génération Z ñoom ñoom ñoo ñoom ñoo ñuy wax tamit i génération ñoom ñooy génération C ndax foo leen fekk dañuy connecté mooy génération bi nga xam ne moo gën loolu moom yaakaar ñun ñëpp kenn mu ciw ci waaw mooy génération bi gën a connecté wu nga xam ne léegi léegi nag ñu ne la ñun dañuy ñëw ci génération Y ak Z ci lañ bokk ñun yaakaar naa man mi wala boo ñi fi mag ñoo ci bokkul waaye sama maas gi ñun ñu ngi tàmbalee ci Y bu dee génération Z bi nga xam ne ñoom dañoo am rupture seen digganteeg ñi fi nekkoon bokk na ci ñoom kilifteef kenn du leen ko forcé ñoo koy tànnal seen bopp ñoo loolu moom loolu moom ñu ñëpp ñoo koy gis amul doo ngi dégg ñu naan la kenn sañatul joxe ndigal maam kilifteef kenn du la ko forcé yow yaa koy tànnal sa bopp waaw l'autorité est choisie mais kenn du ko imposer boo même yow mi liggéey noog moom sax yaay xool noo koy manager mais moom doo ko forcé ne ko man maay kilifa gi noo ko gën a wanee maay kilifa gi sax yow keroog ngay gën a am problème loolu tamit il nga bàyyi ko xel dañuy bëgg relation seen diggante du diggante bu ma la soxlaa dee dañuy soxla relation bu ñu la soxlaa gis la nga doon ko disponible ñuy wax ak yow ba pare seen xalaat ñu yëg ne mi ngi doxal mbir mi suñ ko deful rek da ngay gis ne ñoom duñ ci sentir seen bopp frustration dafay am. ñoom tamit la dictature de l'instant maanaam tey tey saxal mbaa ma sulli liñ bëgg tey tey dañ koy am buñ ko amul caaf xam waaw tey tey dañ koy am. le zapping comportemental mooy zapping tey boo xoolee ba ci TikTok noonu la juddoo xëy na loolu lu sori la boo ko tàmbalee ci Facebook ak watch kii parce que TikTok kii ki inspiré wu mooy gis ne ne nit ñi dañoo yàkkamtee yàkkamte ba mënuñu ci seetaane ay vidéo yu gudd ñu di ko kii ci la inspiré woo mooy chinois bi ci japonais bi boog wala chinois la du moins ci wàllu montre tic tac moom mu defar TikTok xam ne daanaka léegi nii rek la xale yi def boo xoolee zapping lu leen neex rek dañ lay zappé. moo tax yow jëmm ji boo leen neexul même booy wax ak ñoom zappe nañ la bu yàgg suñ la zappe wut nii sax jàpp nañ la ci ci ci ci ci seen xel donc loolu mooy boo leen neexul mënoo fexe ba booy wax ñu déglu la mooy dañ laa zappe daal moo waral léeg-léeg bu ñu àndut ak yow xoolatuñ lu baax xoolatul lu ban yow laa zappe nañ la rek waaw beneen bi tamit notion de droit ñoom sama droit la sama sama sama droit rek ñoom wàllu devoir dañ koy fàtte de kii la boo xam ne lan mooy sama droit lii lan laa ci am lan laa ci am lan laa ci am lan mooy ci sama waru ngar mais devoir moom doo gis ku ko wax loo waral nag ñiy jiite ak ñi ñuy jiite yëpp dañu am problème toujours ndax da ngay bëgg a bàyyi say devoir ba pare di laaj say droit léegi nag yow it war nga mën a xam nooy anticiper loolu beneen bi tamit ñoom bu njëkk ba nit kuy liggéey danaan naa tàmbalee lii ngir suba mu mën a am nangam ak samay doom nangam déedéet ñoom danaan tey na neex ba pare ndax cin bu naree neex su baaxee xañ tey mooy neex après suba moom lu baax baax beneen bi tamit maanaam euh, bu ñu tàmbalee liggéey rek dafa war a jur ay fruits am ci ñu commencé di ko dundee moo tax dangay gis koo xam ne nii day tàmbalee liggéey rek fàtte structure bi lépp ci boppam la koy def ci ay nekkinam mag moom condition de vie am ak bonheur daal euh, li mu bëgg loolu tamit dafay am jafe-jafe ñoom tamit. ñoom ay plan de carrière carrière mooy jaar naa fii réaliser naa fi nangam ba nga xam ne yow ñëppay mën a seere yow lii nga def lii nga fi réaliser lii nga fi def ñoom loolu intéressé wu leen ñoom loolu intéressé wu léegi léegi rek waaw ñu ci ëpp tamit liggéey bi am na solo mais nekkul lu ëpp solo beneen bi ñoom tamit dañuy bëgg liggéey ci condition yu baax a baax a baax waaw. ay comme sa damay liggéey dañu bëgg lépp nooy fépp waaw buñ sañoon sax dañuy ñëw rek toog après xale bi day am automatisme boo xam ne sax moo koy tariloo moom lépp day yomb yow doo bëgg a def effort loolu du du du du jàngalekat yi rek de yëpp léegi loolu ñu ci ëpp daal maam bu fekkee ne euh, loolu da ci am beneen bi mooy moom dafay bëgg liberté ci li muy def boo même boo koy liggéeyloo soo ko bëggee tënk ci benn kii da ngay gis day daal di bàyyeeku def lim mën lu mu mënul mu bàyyi parce que moom day bëgg liberté ci ni muy liggéeyee mais aussi temps da koy bëgg a organiser ni mu bëggee waaw du yow yaa koy imposer temps beneen bi aussi bokk na ci yi ñuy xamee ci ñoom moom mooy li ma wax dafay soxla amal njëriñ moo yooyu moom yu moom dafa am ay qualité yu baax am na tamit yoo xam ne loolu ren koo mën a kii rectifier bëgg na liy doxal mbir moom mu ci yëg boppam nga koy laaj xalaatam su waxee xalaatam mu yëg ne bokk na ci beneen bi tamit ñoom toujours dañ lay laaj lu tax lu tax lu tax lu tax mais beneen bi aussi ñoom juguñ ngir sax fenn rek dañuy jaar fii capitaliser fi dara jug dem feneen dem feneen dem feneen loolu moom moo am ci kii léegi nag mu ñu xool ñun ci suñuy daara ak suñuy école bu dee ñun ñu yor école nga xam ne dañu am ay nitu daara am ay nitu ñu jàng école am ñu jàng léeg-léeg dañ ciy dajeek ay nit yoo xam ne ñii moom leer na la daanaka réalités yi yëpp dab na leen léegi nag yow noo leen di manager maanaam yow noo leen di idaara noo leen di gérer ba am sa résultat ñoom ñu am résultat yi ñu bëgg te bant du damm te tàqalikoo bi dana rafet yooyu yëpp nag euh, ay compétence la yoo xam ne yaakaar naa sëñ Abdou Khoudous wax na ko boo bàyyee jàng bàyyil jàngale démb am na ko ma a waxtaan mu ne dafa am rakkam ju bëgg a ubbi daara ne ko jàng moom jàng ak jàngale da jëru maa ubbi daara di jàngale moom jëru formation loolu xam nga muskil la waa waaw jëru formation waaye boo boo boo boo boo boo gis nga boo boo ubbee daara ba nekk ci ci ngay xam ne jar na formation kon ki bàyyi jàng na bàyyi jàngale parce que pour nga mën a jàngale il foo ngay jàng kon loolu bokk na ci li nga xam ne lu am solo la kon daal yaakaar naa euh, ñoom une heure de temps lañ ñu waxoon pour bañ a xaabaabal te dafa mel ne dafa am kilifa yoo xam ne aussi euh, waxoon nañ leen kii bi te waxtu wi xëy na xaw naa njatte te yéene rek lañ amoon waaye xam-xam buy tax ñu mën koo jooxe wala même bu fi xam ngi nekkee joxe ko it am nañ ci jafe-jafe waaye li ci des it ñuy jéggalu lu ci jub rek ñoo xam ne. Euh, yàlla suñ borom la lu ci dëng it ñu xam ne wax dëgg fa am suñ matadi la waaye suñu yéene moo nekkoon wax dëgg fa am li ngeen yaakaaroon ci ñun ba jël ñu ñu am ci lu foo ko ci comme asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu jërë ngeen jëf salaam wa rahmatullahi allah am nañu mbégte mu kawe suñ xaalim jëf jazaakallahu xayran rafetal nga lool te itam matal nga wax dëgg am nañ ci lu kawee suñu njort ndax ni nga tëggee waxtaan bi nose na te tege na itam ci xam-xam te neex naa dégg maanaam nag mënee su la tënk li mu li mu li mu li mu waxoon ngir ne peut day jël temps bi walla itam maanaam dafa matal lépp daal waaye itam war nañoo war nañoo xam ci li mu wax ne mbir mu nekk balaa nga ci yëngu man cee def résultat d'abord da nga koy xam maanaam mudir bi avant tout dafa war a xam fan la responsabilité am tàmbale fan la war a yem jàngalekat bi moom itam aussi mu xam fan la responsabilité am fan tàmbale ak fan la yem comme ça kenn ku nekk ci ñoom. bu xamee fa mu war a tàmbalee ak fa mu war a yem rek dana yomb kenn ko ci ñoom kenn ku nekk ci ñoom mu jox moroomam cër loolu xam nañ te li mu mujjee dafa am solo lool te xam naa loolu dinañ ko gën a xam bu Cheikh Ahmed Mbacké ñëwee ndax xaw naa dugg tuuti ci ilmu nas mooy xam génération yi maanaam identité wu identité wu ki ngay jëflanteel ku mu ci ban génération la bokk dana lay dimbali ci nga xam naka ngay jëflante ak moom kii naka lay xalaatee xam nga xam-xam yi ngay gis ñu koy teg yépp ci loolu lañ koy ci loolu lañ koy nattee dangay jël ay xawaayit kii def na lii jël naa ko kii def na lii kii def na lii muy ñaar fukki nit ñoom ñëpp bokk nenn nu ñu réagir ci même situation bi danga ciy mën a génnee benn qaayida xam-xam yi ñu teg yëpp ci noonu lañ ko tegee waaye comme ni mu ko waxee ñëkkut loolu nga nga fay fekk chaque jour léegi-léegi mën naa wuute ak li nga xam ne moom la ñu tënk waaye lu ci ëpp ëpp ci noonu lay të tëddee kon xam génération bi ngay jëflanteel ban génération la loolu itam dana la dimbali bu baax a baax a baax ci ni muy jëf ni ngay jëflante ak jàngalekat bi aussi tamit jàngalekat bi tamit war naa xam lan lay wut si ci daara ji li muy jàngale war na koo réussir mudiram d'abord ñoom ñaar war nañoo war nañoo waxtaan mu diiram ñoom ñaar war nañoo waxtaan xam naka la ñuy jëflante loolu da leen di dimbali bu baax a baax. wal qalami wa